en 2012 c'est say morom am ci ñoo xamné commencé nañ dugg ci arène bi nga dem lijjanti sa licence ñeu fas yéene dugg ci arène bi pour woné sa bopp parce que jàpp nga ni instant am nga niveau pour dem ci arène bi ce premier combat dans l'arène ñu jox la euh, boy ambulance bu écrit euh, caaroy mbolo waaw bobo jóge ci ca bi ah. ma daal taxaw nag ndax boobu gars yi commencé bëre arène. suñu waa Aigre ay Hercule. ay armée gars yi commencé bëre arène. te xam naa ne ñoom niveau bi am man am naa niveau bu tol noonu tamit. ndax capacité bi ñu am ci làmb tamit am naa capacité bu toll noon wala ma ëppale leen ko. yaa ngi dégg. ma daal jóge foofu wax ak ñi ne ñooy samay man daal damay ut licence bëri. yaa ma licence bi yaa ko utal sa bopp baax rek ñu doon utal sa licence soo waree am licence doon la utal ku nuyu comme ku ci mel ne taala Diop Talla Talla Diop waaw ku nuyu bu baax a baax a baax ndax yaakaar naa ne moom moo ma utal licence sama carte d'identité tamit moo taxaw sonn ji ba carte d'identité bi génn mu utal ma licence yaa ngi dégg chaque jour su fee ñëw gars yi bu ñu waajal seeni combat arène man bu ma ñëwee sonn ci bay bëgg a dee yaa ada, madam madam beben rumah ba benn jour ma daal suusuwaat man man daal ku oke, gimana maa bëreloo arène wala mu leen maa kii damay bàyyi bëre ok nga menacé gars yi waaw ne leen man daal si nga mën mën leen ma lijjanti ma nama arène kon damay bàyyi bëre waaw ok léegi ci laa ay ma wax taal na ma taal na bi combat ñu daay dem ne waxtaan xaw ma seen wax dañoo waxtaan ñëw naxee ma lool. dama <laughs> xam nga combat man leen kañ. ñu ne ma jour tel. ñu naan sa combat taxaw ñu la <laughs> a tijji. ñu ne ma jour tel la man leen ah ñu ne ma waaw. <laughs> man leen kon baax na ma daal ñëw yëgle ne am naa combat jour tel. nyop daan na ma ah affaire yooyu noonu ñii dama ah affaire yooyu noonu parati parata ñenn ñi gëm nañ ñenn ñi gëmuñ ñii dama dema dema dem ba combat bi de un mois ñu ne ma combat bi daa yàqu yaa ngi dégg teewul maa ngi continué waa sama entraînement nga nekkaat ci waaw man nekkaat ci continué léegi biñu demee dem dem dem ba saison bi di ci ma combat ambulance ambulance ah. bu caaroy mbooloo ah. jour J stade municipal bu ci film bi ma préparé nekk tamit ci samay préparation boobu tamit tuuti naa te xale laa mm-hmm. yaa ngi mm-hmm. dama daan tëdd sax sama yaay xool ma ñëw xool ma ne ma kii tuuti waaye mbii na ngeen di mën a bëree lay mm-hmm. affaire yooyu xam nga bu ko defee yi daan na ah mère kii daal tuuti waaye rek waaye noonu la lajee affaire yooyu noonu ñu nekk ci sama papa moom itam heure bu xëyee daf may ñaanal fajar mu yeema na aja entraînement te man entraînement waaw xaaj moo la daan yee waaw su dem entraînement su ma ñëwee ndeysaan daal dañ defar sax jël lépp na am ndékki bi yaa ngi dégg añ jotee tamit fekk ma dem saal ba ñëw nii yaa ngi su heure añ jotee nii danaan tubbal leen ko suñ ko tubbalee loo xamante nii comme ni man ak ñeneen ak ñeneen yaa ngi dégg ma bu dee man dong la dem des mais sama baab lay dem jëli benn gën di bool indi ko daneen kii moom moromam ñoo jongante uh-huh. lu manqué lu nekk rek moromam pour ko ëppalee dina ko won uh-huh. yaa ngi dégg uh-huh. ma daal di jox moom ma lekk mais su ma lekkee li ma war a lekk su ma suuree rek na ma suur naa mën a may mënoo doon mbër di ma gën a ñaaxee ci loolu teewul suma may entraîné buy bëgg a dee su ma ñëwee mën a ma ñaax waaw kay ñaax day bëgg nga yokku effort boo def nga redoubler waaw redoubler d'effort voilà ma daal di ñëw ba jour di lamb ji mu woo ma bi ñu su wala lamb ji xaw ma jour lamb ji mu woo ma asabra jour lamb ji mu woo ma daanu ma baal ma ne ko waaw mu daanu kaay ma ñëw mu ne ma léegi lan la loo xalaat ma ne ko dara xalaatuma ko papa ndax booba moom itam mu ngi natt xool sama capacité mu ngi koy xool mm-hmm. yaa mm-hmm. mu ne ma waaw ma ne ko bul jaaxle kii su ma bi jeex mm-hmm. pourtant noonu génn seen diggante ndax gëm-gëm boobu laa am ok man làmbu ak ku mënti doon mais mais mayoo ko sax temps de répit maanaam réflexion pour mu xalaat sax defoo ko man je m'en souviens ah c'était en 2012 am na huit ans ci tey mais je m'en souviens mu mel ni démb ci man parce que ko sax fu mu ma ko may fu naa am ndax loolu laa préparé loolu laa indi loolu laa bëree su ma boo ma ne mbapat loolu laa bëree ñëw appliqué ko arène timit su ma ñëwee xaj na timit boobaak léegi yàgg na mais sax làmb su ma ñëwee li nga xamante ne nii mooy nekk sama est-ce que après bi nga daanee booy ambulant ban geste nga def waaw ba des nga def des bi ma njëkk def dama daan ambulance daw jubali ci momar bala ngay dem ci momar da nga daan ambulance di siffler nga kon ne da nga koy broué ci t'en souviens après bañ dayee après ma dal la ma ne la Assane yow looy def nii mbapat ak arène bokkul mbapat mën nga def lu neex mais arène da ngay def benn erreur bu ndaw ñu sanctionné la deux ans say morom bàyyi la fi yaa ngi fàttali waaw loolu dëgg la mais nag xam nga boobu combat boobu damaa doyalul problème waaw mais daanee mbër ba ñu sifflé ne combat bi jeex na nga kon ne naan da ngay bëri naan da koy ak yooyu ya, xam nga li ma tàmm mbapat la muy soo ñëwee booy booy sama premier combat tamit. mbapat jël yu leer nga tàmm. Mhm. jël yu leer nga xam. Mhm. ma ñëw arène arène prime ma dóor ko ñaari góor duraan mu daw yooru. Mhm. yaa ngi dégg ma dóor ko tànk mu dëpp. waaw loolu yomb ak man torop ma ne lii dafa yomb. léegi nga ne da ngay continuer. waaw ma ne nag léegi arbitre bi. xanaa xamoo xanaa xamoo ne arène. continuer xanaa xamoo ne arène. yaa sa adversaire sifflet moo leen di boole moo leen di tàggal bu arbitre ne prime ngeen roofoo bu ne prime jël am na c'est fini. waaw loolu. après xam naa loolu mais comme am ni mu ñëwee rek ak ambulance ni mu futteekoo xam nga nekkoon ci côté bi mi naam bi Guirguel la nekk Guirguel la nekk dafa mbapat de dafa mbapat sama kanam daanaan la ambulance daan na fi Pape Faye Pape Faye deux Pape ko fii stade euh, euh, terrain daaru bu euh, sama kanam waaw loolu dëgg dama ñëw mhm. ñu eh, affaire xam naa ne ñoom nin ma xamee ndax maa ngi la woon ñàkk bëri nañ mhm. yaa ngi dégg léegi xaj na tamit ñëw na futeeku état bi rafet macha allah. macha allah yaa ngi dégg mu ñëw liggéey liggéey bu jaar yoon. te tamit mbër la. mbër la waaw. yaa ngi dégg mais nag xaj na mbër mu nekk champion bu nekk champion koy daan. d'accord combat bi jeex. waaw nga am ci ndam. ñu daje ma la booy mbapat ak arène bokkul. mbapat. affaire de waaw affaire de koñ la ak yooyu noonu mais arène. erreur bu ndaw mën nga ko def gars yi sanctionné la un an deux ans say morom bàyyi la fi nga ne mënoo grand bi garaaw kan sa deuxième sama deuxième combat ñu jox ma booloo. booloo bu fan. Europe lan ma jox. Mhm. tamit instant boobu booloo mu ci bu baax. Mhm. boobu mu. père ñu mhm. ngi koy sant. ñun tamit ñu ngi sant daal di ko gërëm. ndax père Bekaay def na moom itam. ci ñun parcours bu baax. boo booloo moom tam per baka yuuxu na ko fi mhm. daan na fi ay mbër ah, ko xale bu gën a malaga noonu affaire yooyu noonu wax wax mhm. wax mhm. ñu jox ma ko boobu mu ngi tegle six victoire man maa ngi ci benn tegale na ay victoire six victoire la man ma jóge ci sama deuxième combat ñëw nga jóge sa ñëw deuxième combat jël ko ñu ne ma yow danga nga dof ak yii fekk jël avance bi taala moom tam dégg na ci lu ci ne te gis na ci lu ne. waaw ah. ba mu jëlee combat bi. waaw ah. jour si arbitre sifflé. jour si arbitre sifflé. waaw ah. booloo moom itam maa ngi nuyu. Mhm. waaw di la waaw moo loolu arbitre sifflé xañ na moom comme ni mu daan defee ñaari attaquant la. Mhm. mu dox ñoom ma dox ñoom ñu lajjee. kenn taje waaw. Mhm. kurbañu Dakar kuu yi daw. waaw rëll rëll rëll. ñu dóorante dóorante dóorante dóorante ba yegg ci côté saako yi. arbitre sifflé yaa ngi mm-hmm. moom itam du bàyyi mm-hmm. te man tamit noonu laa mel du ma bàyyi naturellement waaw léegi arbitre sibla waat mu doxaat mu doxaat ñu dajawaat mm-hmm. kuy takar naa si waat yaa ngi mu dóor dóor dóor dóor dóor mu dóor man itam ñu dóor xeex xeex bu métti maa moom boo xoolee sax ci côté saako yi ñu arbitre sible fa la ñu arbitre bi bàyyiwaat fa lañ jàppante yaa ngi dégg bi ñu jàppantee mu dóor ay épércule mu dóor ay épércule xam nga mais lépp daanaanu kat la moom itam mais xam nan ma mhm. bëggul bëre ak man boobu moom mu ngi serte xeex bi rek mais ku amul liñ naan ku amul yaa nàmp maam mhm. yaa ngi dégg mënul mhm. bañ bëre bi ndax kenn ku ci ne xeex nan ba kenn ku ci ne toqi xeex nan ba sonn fa bëri en fin de ci lañ bëree ma daan nga daan Boy Lo ah. nga signé sa deuxième victoire dans l'arène ah mm, ñun ñu amoon yaakaar bi ngay lu gën a am yaakaar ne waa ji bu sonal sa day ñëw jël lim moom arène bi day def day def benn yoon dem yoonam kenn mënu ko teree jëli cëram ci làmb bi sa troisième combat la l'arène nga am kat sa troisième combat ma ñoo bu bu yoof boobu nekk nag combat bi nga xam ne moom moo la freiné ci làmb waaw combat boobu ma ñëw def yi fi xale muy tegle naa deux victoires damay ñëw def yi fi xale jàpp nga ne maa mën booy du ma seen moroom ku taxaw sama kanam dama lay fën ndax boo xoolee combat boobu lépp rek bi mooy def maa ngi ko defee ci cimikaay bi ma taxaw ndax bi ma jógee suñu kër ba yegg si esaat ci cimikaay bi laa taxaw xëppoo li ma war xëppoo lépp def li ma war a def lépp si feewu pare ci ndax jàpp naa ne bu arbitre sifflé xeex sifflé bi bu sifflé rek. Mhm. moo ko fa ba moom. combat bi jeex na yow da nga jàpp ne arbitre day sifflé nga jëlee ko fa. waaw kay. finalement yaa dégg waaw. bi gën a ci sa carrière. parce mooy tache bi njëkk ci sa palmarès. dans l'arène. oui di jóge foofu noonu arbitre ni prip. moom maam mu dal ci kawam. Mhm. Mhm. maa ñëw ci rek xam nga naan boo yaakaaree ne. weñ bii tege nii ab xob la mhm. ba tax na nga ñëw bëgg ñëwee rek jaay ko doole dem ndax xob la nga jam la bett après combat bi dañ daje mu ne ma grand bi ma ne mu ne ma sama combat bi maa daan ko rakk mu ne ma ko est xam nga ki nga daan boo ko gisee tey boo ko laajaatee jëlal na lii laa ko la xool dama ko ne est ce que xam nga ki nga daan mhm. mu ne ma nu mu demee noonu ma ne ko hey eh, dangaa dangaa yow dangaa mooy dangaa rëcc mhm. est ce que xam nga maam Balla mi nga daan mu ne ma kon yéen yéen a ma xam parce que man yoofu laa dëkk ñu aussi dañoo mbapat dañoo bëri man ko kooku dama koo toog bu muy xale bu ndaw ndaanaanu bërekat la mais sa premier défaite dans l'arène mooy sa diggante ak Malick Niang Junior bu écrit Yoff nga échoué sa première défaite dans l'arène sa troisième combat nga dugg signé deux victoires daan Boy ambulant jóge ci daan booy loo nga dajeek euh, Malick Niang Junior bu Yoff nga ñàkk sa premier combat dans l'arène après sa quatrième combat nga am ka sama quatrième combat mu anyo am pakala xaadim pakala waaw bu bu ginnaaw raay waaw bu ginnaaw raay là aussi waaw ma ñëw am ko timit mu doon loo xamante ni combat boo xamante ni combat bu ma neex la jël bi waaw jël bee rëy waaw ndax damaa ñëw gars ne bi kat am deux victoire moo mhm. ci benn defetam parce que nekkul deux victoire am deux défaite mhm. mu ñëwaat esaat. Pakala tamit nekkaat koo xamante ne nii macha allah. duñ futteekoo car macha allah. Ah, ah, non dana ëpp. morphologie mënuñu wax mënuñu wax ne moo la ëpp doole mais dalaa ëpp ci. waaw kay mu futteeku. voilà jot ju rafet. voilà daw dongali samay supporters ñëpp. ñëpp xaaj bi yëpp daal di bàyyi. mais ñi nga xamante ne. ñëpp ñoom. xam nan man maay kan xam nan capacité bi ma yor. Ah, ñoom dong ñoo taxaw. waaw adduna bi ma dóor ko comme man amul lu may arrière ci ginnaaw. Uh-huh. man lépp ci kanam la jëm. Uh-huh. yaa ngi dégg maanaam